ngi masawu bu baax seen doom ji seen doom ji dem te it di wax rekk ñi lay pêcheur ñi lay nappkat nañuy daal di def attention ci li nga xam ne moo di géej gi entreprise bi nag diwee mu ngi ci ay gët yu setagul ginnaaw ba nga xam ni entreprise bi muy joganteel ñu gën koo xam ci orange dafa daal di lànk rek bañ signal ko benn accord bi tax nag li nga xam ni moo di agence bi bu wéef bi di am ab réseau de télécommunication ak puce commerce électronique bi ko yombalal liggéeyam moom nag Orange Sénégal taxaw na temm bañ li ni mel ba tax na nag wii fan yi mu ngi ci ay problème ndax ñenn ci askanub Sénégal dañoo jàppati rek bi lépp agence dafa daal di wóoradi ba tax nag nangoo tuñte dugal seeni xaalis di ñëw ci coupe du monde bi ñu dëgmal ginnaaw ba nga xam ni ci lépp di Sénégal dina jotal amal ab mas amical bu njëkk moom ak équipe bi di Bolivie ñaar fukk ak ñeent ci weeru septembre atum 2022 bi ñuy dëgmal naka noonu nag bu ci jugee ñaar fukk ak juróom ñaar ci weeru septembre bi ba tey équipe bu senegal bi dina jota laalanteel ki nga xam ni moo dip équipe bu Iran mi desandi ci wàllub politique ginnaaw ba nga xam ni kii di Barthélémy Diaz mer na ba futu moom nag Barthélémy Diaz ku ko xam xam ko ci wàllum offensive justice moom na offensive moom nag taxaw na temm ne dina dem fële ci yoon ginnaaw ba nga xam ni kii di guvernement bu Sénégal daa taxaw temm rek ne du fay ñenn ñi nga xam ni ñooy liggéey ci bi lépp cabinet bu mbiru bu ndakaaru ki nag di mer bu ndakaaru di Barthélémy Dias rafetluwul benn yoon li ni mel ba tax na nag moom pare na pour xeex li ni mel te du bàyyi benn yoon li ni mel daal di seet dañuy des ci kawteef ginnaaw ba nga xam ni dëkk bi di Medina Chérif Pastef ñaar ñi nga xam ni ñoom nag ay nappkat lañu woon lañu daal di faat li ni mel nag ñaaw na trop te benn yoon ñi lépp waa askanub Médina Chérif rafetlewuñu ko di ñaanal ñooñu rek ak dinañ ko ndar képpee foofee ca Tiwaawan pël ginnaaw ba nga xam ni quartier bii di Daaru Salaam ab dex daal boo xamante ni ndoxu taw bi daldi na ko laal ba lii di dex bi nag daal di génn bay sax di nangu yenn ci kërub askanub Daaru Salaam googee internetu seen acti tv tey nag li leen leen indiloon ci alxamis bi di leen wax ni rek di daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonne te bu leen di fàtte di appuyer ci cloche bi pour di am suñu notification à la prochaine ci yeneen xibaar fii seen chaîne seen acti